kooru waaju baax bi jar na seetaan damay gàdd lii nga jël fi mille cinq cent nga jënd ci ay jaaru cercle nga ma weccet bi ma jël ci mille cinq cent mille cinq cent waaw ci ay jaaru cercle takk ko sagal sa bopp yow waxoo kenn man ngay waxal man ngay gaaruwaale waaye gaaruwaale borom bi sagar ko ma man du ma jël gaaruwaale ku ñam loo xam ne jëwa daaq moo ci mën a changer ay caleçon boo jaaree Petersen mën nga ci am ñeenti couleur dina baax fan yii duma jiital ndax gàcce. yow ku moom xar mi rek nga bàyyi buum gi. man ngay wax ak yow dama laa tudd. junj doy na boroom xel li ngay wax maa ko moom duma jël gaaruwaale. kon maa tay waaw démb ba te ay wa ki de ki de ki de ki de ki de de de de ba te ay wa ki de de de de ay wa ki nooy simbee ci koñ bi te amoo autorisation ak simbum koor fook ko gisee xam nga ne ku ne bëgg na ma ci àdduna ma bañ damaa xam ne jigéen laa dama war war naa dégg alxayri bala maa dee ñu di ma takkal bant. I never ever nga def ma lii. believe me eh. sometimes I'm like that you know. maa lay tànnal ñaar nga tànn ci kenn ci ñoom ñaar nga xool ku la ci neex ma dox ko ba mu sotti nga sëy moom mooy président Macky Sall ak Ousmane Sonko.